ñu samay lañ. Ah, dafa am ñoo xam ne people la ñuy def. ñooñ dama leen bëgg. <laughs> waaw people bi moo laaj yenn yi comme li Zeynab di wax sànq ñoom dafa am euh, nu ñuy doxee. Mhm. leeral il faut que nit ñi tamit ñu comprendre people dafa am nu muy doxee et ça du question de nit ñi dañuy yàq wala dañuy dugg ci vie privée jàmbur mais au fait c'est ça le people dafa am benn charme bu ci nekk boo xam ne on peut pas mënuñu ñàkk dugg des ci un peu quand on parle de vie privée wala dara c'est ça c'est du people ça rime avec people waaw c'est ça mais loolu bañ mais loolu moo fi nga def benn affaire que duñ ko internet people duñ ci wax parce que benn célébrité nga mm-hmm. c'est normal tey comme kii li mu wax dafa am solo wax nga ci benn titrage nga def point d'interrogation effectivement les sénégalais ne prennent pas le temps man dama koy def damay gis suma journaliste bi dugal benn xibaar mhm. def def point d'interrogation ñu ñëw saaga la yaa mën a fen te point d'interrogation bi question amoon na façon titré bu bees sax boo xamante ne euh, euh, gars yi jël nañ ko waaw euh, mooy mooy mooy pendu tamit waaw amul fal c'est pendu genre yooyu mais loolu gis naa ci ay xeetu commentaire yoo xamante ne <laughs> yoo xam ne kii la ko jaral waaw fii lu ko jaral ay jeu de mots la très bien ay jeu de mots la et puis il faut ñu comprendre tamit sénégalais yi loolu moo leen neex mm. boo deful jeu de mots yooyu noonu du ñu dugg ci sa contenu te képp kuy def contenu bëgg nga nit ñi xool ko dañu waxante dëgg bu ñu bu ñu naxante suñu biir comprendre nga mais li ci am solo mooy ñu gëm yàlla xam ne dafa am fu mu dégg muy règlement de compte yi c'est-à-dire nit ñëw jox la xaalis ne kii defal na ma dara. très bien loolu dama ci ma ci wax mooy je suis à la télé. Amadou Fall bëgg ngay dugg foofu. ma Big Taf je suis ah. devant la télé man personnellement de je le dis amul kenn ku may seetaan na woote. mais loolu am na ma jox un euro wala un un franc CFA. Mm-hmm. ne ma defal ma lii wala bindal ma lii. c'est-à-dire mm-hmm. ma fay ci. mais nga ay gaañ quoi yow am nga non c'est-à-dire man comme l'appel xam nga xam nga yow man tey jii nii je pense que ñu bëri buñ ma xamee xam nañ ne du ma nit buy wootanteeg ay nit sax lu bari. Mm-hmm. je le fais pas parce que euh, man doxuma ci loolu quoi man c'est-à-dire lépp dama bëgg teg ko ci yoon. Mm-hmm. man bëgguma kenn mësuma woo. kenn mësuma convoqué kenn mësuma woo ci ay teesante kenn mësuma wax yaa def lii bañ naa ko ba modérateur sax la ma ñenn ñi di woowee. Mm-hmm. quand je vois quelque chose qui n'est pas normal rectifier ma jéem ko defar mu rafet parce que man ah man de dama gëm yàlla te xam naa ne àllaaxira am na suba am na donc dama ciy veiller bu baax a baax xaalis jaraluma yenn yi wax dëgg yàlla et je le dis tey bañ naa ko ba même les artistes yi nga xam damay liggéey ak ñoom wax dëgg yàlla respect la respect la ñëpp am ak man parce que wax dëgg yàlla damay gis sax ñaar ñu xuloo ma koy jéem a defar man ci loolu laay dox mais ma njëkkante ci maa njëkk a lii maa njëkk wax lii wala laa non non lépp dama koy jéem a teg ci yoon léegi nag liggéey ku ci nekk fa ngay commencé ak tey fi nga toll yaa ngi ñaan yàlla avancé mm-hmm. yaa ngi ñaan yàlla bàyyi yenn yi sa ginnaaw mm-hmm. ñaan yàlla defaraat affaire yi mu kii je pense que tey nañu jéem a defaraat euh, les sit internet chaînes yi nekk fii yëpp ñu waxtaan ak ñoom je sais pas y a des formes yu ñu mën a def defay ay association def je se pas quoi essayer de refaire les choses mais tey soxor sax dafa am suñu biir man tey am na benn chaine bu nekk fii bu mag boo xam ne tëj na ma pendant un ci loo xam ne sama benn kii moo jël benn élément lu loo xam ne amul sax 500 vues mu dugal ko mu mu porté ma plainte tu vois plainte laa la wax ma woote te ki ma woo. est-ce que jar tudd. ah la rek. ok parce que loolu Dakaractu def na ma ko. Mhm. et Dadi c'est un mais mi ngi bu fekkee may boobu laa gëj a woo y a souci tëj nañ ma pendant un an mais y souci yàlla mooy buura ah. et je l'ai ne ko yàgg nga ma woo Dadi. di ma wax Bamba est-ce que doo dindi lii ma koy dindi pourquoi lu ndaw lii erreur bii am man am na chaîne yu bari ay seen people ñeneen a ñeneen ñu def erreur boobu woo ma ci saa si damay woote Silman enlève ça s'il te plaît lii jaru ko garaawul baal leen des concerts que j'ai pris à Paris ay nit reprendre ko ay leneen ak leneen mais lu ma lu tax ma leen di tëj ban kii la ma amal ban intérêt def nañu erreur bon après on les avertit est-ce que beneen yoon doo bañ a def lii wala dara mais pour man sax grawul donc je pense que tey dafa am benn soxorante tam bu am suñu biir. très méchant c'est pas normal que ci ci euh, euh, force boobu. am ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy réseaux sociaux euh, damay ñëw ci ci mm-hmm. ci li nga xamante ne moom mooy titrage fi ñu toll parce que yow yaa ci ñëw. titrage yi ak titrage yi moom xam nga man li ma ci wax rek titrage yu bëri pour la l'attention te comme li ma la wax rek ñaari mbira kii di wër buzz ak kii di wër euh, kii di wër buzz. est-ce que c'est pour attirer euh, euh, kii di wër buzz ak kii di wër clic. kii nga xam ne moom people lay liggéey day commercialiser day monétiser ay mbiram. nañ ko ko nangul. Mhm. kii nga xam ne moom xëy na. daa am ci beneen yoon bu mu ne kooku tam